chers internautes, informez-vous sur Bawal TV officiel. Nous vous donnerons des informations sûres et fiables grâce à nos correspondants de tous les côtés. Salam alaikum. Vraiment, je suis ému. Euh, aduna euh, dafa doy waar léegi-léegi da ngay toog yow sa wàllu sax ngay posé wu question ci li ngay wax ndax ni nga waxee ko noonu lay génne vraiment ma bëggoon wax ne que tey am na encore mbégte bu mag ki président Macky Sall mon ami Macky Sall bu mag a mag a mag a mag a mag dama mës di waxtaan ak moom mu ne ma Youssou je ne ferai pas moins que mes prédécesseurs mu ne xam naa may kan moom xam na boppam xam na fi mu jógee fi mu soxee ko bu waxee lu mel noonu tey bés bu mel ni ne ñëw dama naan ko gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama duggaat nga ci histoire senegal tey duggaat nga ci histoire u démocratie pas bi nga xam ni que dañ ñu ko andil mu jógee bitim réew nasaraan bi defar bosom andi ko mais bi nga xam ne dafa dëxëñ li nga xam mooy sunu aada sunu culture si kaddu si lépp en ce qui me concerne nag lenn rek laa ciy mën wax si jàngat bi yépp man sama diggante ak Macky mooy nit soo koy gunge moom bu dawul bul daw loolu mooy jàngat bi moo tax tey am naa mbégte lool Afrique am na mbégte lool ndax nag man damay wax ci turu Afrique am na ñu bare gis naa leen posé nañu question wax nañu lii waaye tey siggi nañu siggi nañu fépp bu leen foog ne ndam li. Sénégal rek la pour Sénégal la ndax rôle bi muy joué waaye siggil na képp koo xamee ni que démocrate nga képp koo xamee ni que africain nga tey siggiwaat nga bravo Macky merci beaucoup